Cheikh Mouhamadul Xabaan mii jëme ko ci ñépp ginnaaw bi nga xamee ne nag Sëriñ Muntaxa dunoo yónni woon ci moom waaye la jiitu mu dinu yónni ci moom Sëriñ Mouhamadul Xabaan mii ginnaaw ba nga xamee ne mbokkam mu baax moomee di jàmbaar jooje di jëwriñ jooje di sëriñ ma Mor moomee nga xam ne jataay yii moom lañ ko daan bokkal mu àndoon ak Serigne Mountakha liggéey bi Serigne Touba bii féete woon ko ci wàllu gu yaatu gii di wàllu alxuraan ji taxawal ko alxuraan ji sëñ Mamoor liggéey ci liggéey bu réeréy bu yaatu yaatu bu rafet rafet te doon ko ànd bokki taali bi yi fi toog yëpp ba kenn ku ci nekk ba sëñ Mamoor wàccee da ngaa jàpp ne yow yaa ko ñàkk ndax yaatulug sëñ Mamoor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 fas nañu yéenee topp ndigal loolu moo ñu sant. di ñaan itam suñu kilifa gu baax googee. di di sëñ Mamor. way juróom wa gàttandu ko. way juróom wa gàttandu ko. Serigne Touba fay ko. Serigne Touba fay ko. jëfam jim ko jëfal fii. ndax noonu kat dañoo ñëw rek nekk ci kanam waaye liggéey defuñ dara. ndax noonu kat dañoo ñëw rek nekk ci waaye defuñ dara. ndax li def lépp. ndax li wane na aw woo xam ne. wane na aw woo xam ne. dañuy jaar ci yoon dem rek. dañuy jaar ci yoon wi dem rek. kon nag nañu ànd sëriñ bi. téeméeri at. yu àndut ak genn yu àndut ak genn wéradi wala dara. li mu bëgg ñu koy def. naal yi mu def yi mu naal yëpp. naal yi naal yëpp. ak ñaan yu baax yi muy ñaan. ak ñaan yu baax yi muy ñaan. suñu borom di ko nangu. ñu ñu ànd yàgg ko yàgg ko ànd ak moom. yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak Serigne Mame Mor itam. dafa wax ne mi ngi sant.